tey jii ni las xëy nag dañu waxtaanal ci li nga xamante moom moo ci euh, mission bu FMI mi nga xam ne daal nee na mu ngi rek gis ay ëllëg yu baax ci wàllu exploitation pétrole fii ci réew ko Sénégal waaye tamit yokkutee fukk euh, produit intérieur brut bi nga xamante ne daal daanaka war na sax mën a gën a yéeg ba ci euh, juróom-ñett yu toftal juróom-ñett rek fi leeg atuma 2024 Fonds monétaire international nag di rafetlu rek daanaka kattan mi nga xam ne daal réew ko ay jéego lu ni mel tam xëy na ne fang cee tukk alerte yéenekaay mi nga xam ne FMI ma ngay nag euh, noté rek résilience bu réew ko Sénégal bu ñu sukkandikoo ci suñu suñuy naataango jàppale nag ni ab équipe rek la ñu fi daal di woon a yónnee ci kilifteefu Edouard euh, Chemayel moom mi nga xamante ni daal jamono ji euh, mu ngi fi woon na amal ab tukki nemmeeku li ko dale nag fanweeri fan ak benn ci weeru ba ci juróom-ñaari fan ci weeru sattumbar bile jàppale nag ni ñoom ñooñee def nañu rek ab xayma jëm ci jéego yi nga xam na ci wàllu ko koom ak lépp loo xamante ne ni ah, moom la ñuy xaarandi rek ci wàllu ko budget gi fi lekk projet bu atum 2024 coowal li la tam xëy na rek ne fang cootu ko le peuple yéenikaay bu ñu koy xayma croissance maanaam yokkute fu bee nag dëgg la jàmb leen sax ne dana gën a yokk ba ci juróom-ñett rek yu toftal ah, ci téeméer bu jël croissance bi tamit war na mën a dem rek ci ah, na mu gën a yokkee ak naka lañ koy xaarandi rek bokk na ci juróom benn rek yu dem ci téeméer bu jël lu ni mel am na ab yokkute la waaye nag l'info yéeni kaay te ji lam ñuy xamal moom mooy tension sociopolitique bi tam am na rek beneen nuppa njeexital boo xam ne mu ngi ko ciy def ndaxte buñ koy xayma rek am na nag euh, loo xam ne daal teg na ko ci wàllug secteur du commerce ak i service am loolu daal waral tamit ñu daal gis ne am na ci ab croissance su boo xamante ne daal moom mu ngi jóge ci euh, juróom yu toftal ñett ci téeméer boo jël wàcc sax petit ñeent euh, yu toftal benn ci téeméer boo jël coow li la tam bokk na ci li nga xamante ni tam direct news yéen kaay xëy na rek ne ko fang ci xëtam bu njëkk buñ koy xayma am na ci nag ab croissance boo xam ne ñeelul hydrocarbures yi moom tamit dana yokk coopération autorité yi Sénégal ak. ñoo xam ne noonee la ko FMI daal di gisee bokk na ci daal yéenekaay bi njeexital yu nga xam ne tey jii mu ngi koy waxtaanee les échos yéenekaay la ñuy fekki rek mu ne ñu aji manifestation yi nga xam ne nag amoon nañ ci làngu ko politique yi tam ñoom am nañu ab njeexital ndaxte wàcc nañ bu baax a baax rek li nga xam moom moo jëm ci wàllu croissance gile ci làngu ko politique gi li nga ko yéene kaay tam xëy na def pàng rek ci tamu njëkk mbiru ko njiitu réew mi euh, Macky Sall nañu nag jamono ji euh, dana ci euh, wax lu leer fi lekk ëllëg ci gaawu gi am na nag ab ndaje boo xamante ne ni ñoom daañu ko amal ngir xool seen anam la candidat bay gën a fësee le point ak ci moom ci coow lile nee na njiitu réew Macky Sall nag am na ci lu ci bëri ndaxte nag mu ngi janoo ak ay sas yoo xamante ne ni am na tam ci kanamu ñenn ak seeni i intérêt ab candidat nag bu plan Sénégal émergent lay doon doole ab laaj la bu mu samp loolee dara leeragu ci waaye fi toll nii daal ay partenaires extérieurs ak seen i calcul lépp la yéenekaay bi xëy rek ne fàng ci xëtam wu njëkk Vox Populi yéenekaay moom ci coow li nee na aljuma gaawo ak jibéer gi nag dana rek am solo lool ci li nga xam ne moom mooy biir Benno Bokk Yaakaar fekkente ni nag coppite amul te ji am na ab ndaje loo xam ne daal ñu ngi ko fa fas yéene amal laata mi nga xam ne moom mooy ba ñu gën a xaarandi na ngeen ni ëllëg ci gaaw gi la tribune yéene kaay moom nee na rébellion dañu ko daal di tere maanaam nag fippu ci responsable yi nga xamante ne ni ñoom dafa mel ni rek dañu rek takk ay casserole di ko diri ci li nga xam ne moom bi lekk parti addu jëmale ci biir bés bi euh, le jour mi nga xam ne nag ne na bennoo dafa mel ni daal ñoom mu ngi ci euh, tas tasar daal bu ñu koy xayma Youssou Ndour moom ma ca euh, déposé ab démission na ci nag lu yëndikaay bi xëy rek di waxtaane ndax yu dafay waajal nag ab candidature laaj la boo xam ne amaguñu tontu ga waaye fi ñu toll ni daal li ci leer moom mooy président la république daal dana dalal ay leader yu bennoo bokk yaakaar ak seeni candidat léegi ni ëllëg nag ak ñi nga xamante ne ni ñoom la yéenekaay bi duppe ay petit monstre ñu koy xayma critique kay yéenekaay moom moo xëy ne ko fàng ci xëtam mu njëkk critique di ñu sax xamal ne buñ koy xayma daal fileek euh, ñu jëm ci woteek présidentielle yi juróomi weer kott la njiitu réew Macky Sall nag leeralagul woon waaye dafa mel ni jamono ji dogg na takku ba dëgg rek ngir daal di fësal jamono ji li nga xam ne mooy xar kanamu ko euh, bilekk euh, candidat ñeneen ñu dogg ñoom ñooy gayndeek Sénégal ñoom ñoo ñee ci ëttu ko wii sport yéen i lañ leen di fekk te ji euh, ñu fas yéene nag jannoo ak réew ko Rwanda gaynde yu ndaw yooyu nag nara dem rek représenté équipe nationale bu Sénégal ci li nga xam moo ko jëm ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ci biir loolee ci réew ko Côte d'Ivoire Amara Diouf ak i naataangoom ñoom ñoo war a dawal bu ñu sukkandikoo ci wi sport ay yéenekaay ay sax li mooy lutte yéenekaay yi xëy fësal ci sum tey jii kii di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. cant ak ñeen la yow tamit. ñu doxante dig daje ba kañ. ëllëg incha allah. jërëjëf di la souhaiter nga passer une très bonne journée mu ngoog mbokk yi des leen ak ñun ah, léegi léegi dañuy dikkaat ci plateau bi ànd ak Pape Malick.